يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم واخنا نيو تي حديث بو خامتني عبد الله بن عمرو مو نيو كو نيتالي حديث بي موغي سي بخاري موغي سي مسلم مو نيك حديث بو خامتني جوليت بو نيك ورنا دي تي سايتو بلا موي بوكو تي منافقون موي نيغا خامتني هم في الدرك الاسفل من النار يالا واخنا تي القران ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار نيغا خامتني نيوم نيو نافقي مو نيوم نيو نيك في غنا سوفي تي سفاره موي تي نيو يا خوغ يالا نتي يالا موسى yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci xadiisu abdullah ibn amr bi ne ñeent yi ku mu nekk ci ñoom xamal ne naafeq dëgg nga mu ne ku benn ci ñoom nekk ci yow tamit xamal ne benn ci jikkoy naafeq moo ngi ci yow fii ak dañoo si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne buñ ko wóoloo dafay wor nit koo xam ne buñ la wóoloo nga wor yonent bi sallallahu nee na benn ci jikkoy naafeq yi mu ngi ci yow mu ne saa yu waxtaanee dafay fen dafay wax naka sudut noonu dégg nga mu ne bu joxewee rendez-vous maanaam nga ne nit ki nañu ànd ci nangam bi jusqu'à ñu am nangam dalay wor du ngeen egg fi la waxoon loolu ba tey ci jikkoom yi la mu ne naka noonu tamit bu la meree daf lay sosal wala mu génne ci yow sirru boo xam ne daf dañ kaa nëbboon maanaam secret bu nekkoon ci yow mu fësal ko yonent bi sallallahu alayhi nee na ñeent yi moom ku mu nekkandoo ci yow naafeq nga amul sikk te kenn ci benn ci ñoom bu nekkee ci yow yaa ngi jikkoy naafeq yàlla ci yàlla musal إمام الشافعي لفظ وهم لا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالخفة وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا مهم إمام الشافعي من أمول بن يو بنك تخرج بوخة من تنه دفاي ور خارتم لولو خارت من يتم دفاي dii ngat dafay weddi mbaax boo xamante ne defaloon nga ko ci lu jiitu dafay dem sax bay fësal ay sirru yoo xamante ni dafa nekkoon démb lu làkkatu moom imaam Shaafi mu ne maa ngi tàggu àdduna ba nga xamee ne amatul benn xarit boo xamante ni xarit booy wóolu la bu wóor la bu dëggu la bu dëggu ci mbëggeel gim la bëgg itam te loolu dafa bokk ci chance wërsëg yoo gën a rëy yàlla may la ay xarit yoo xamante ni ñu dëggu lañ boo ko mënut am sax desal sans musal ci warkat yàlla nañu yàlla musal itam ñu doon ay warkat yàlla nañu yàlla musal ñu am benn ci jikkoy naafeq yii ni bi jaahi rasulillah jullit bu nekk ne étudier boppam ngir yàlla musal ko ci jikko yu bon yooyu noonu ñun dañuy joxe ay cours en ligne fu nit ki mënti nekk ci àdduna bi yëpp mën nañoo contacter incha allah képp koo xam ne intéressé na la mën nga ñëw envoyé message ci numéro bii nii par whatsapp appel yi day xaw a joxe pour ñu jël ko si ñuy préciser que ni cours yooyu noonu c'est payant